yow mii gën gi gan yow mii gan gi nga xam ne yaa ngi nii di ñëw indaale sërica sëricëb mbëgg ak sëricëb xéewal maa ngi lay dalal dal maa ngi lay dalal bu baax dalal koo xam ne am na fu mu tàmbalee de waaye amul fu mu yem man sa laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarramam bi xira taaati wa sadadi yàlla boo dañ di ñëw di nekk suñu gan di doom gan gu tedd saa boo ñëwee ñu di la teral di la ganale waaye nag li ñu lay ganalee yow mooy ay topp yàlla ak ay jëf yu baax fawzta man inda rabbin laa sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi war rashadi yàlla boo dañ di doon ku ñu màggal ca suñu boroom yàlla boo dañ yow weeru koor di doon koo xam ne mboolem ñu ragal yàlla mbooleem boroom xam-xam yi mboolem nit ñu jub ñuy sàkku njub dañu lay màggal di la teral laa zilta maaxiya aw zaarin wa qaadiya aw toorin wa toorida axyaarin min alxaladi yàlla boo dañ yow weeru koor di doon jamono joo xam ne suñ boroom da ci jéggale ay bàkkaar di ci faj ay aajo di ci dàqal nit ñi bépp nëx-nëx boo xam ne da leen di yàqal seeni jaamu yàlla kon xasida gi sëriñ bi moo ko defoon di ci tatagal weeru koor ak di ko ci taral أهلا وسهلا وترحبا